asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 16 juin 2020 ñëw ak yëglekaay yi sunu làmb la ñuy xëy tey doore ko yëglekaay bi nag tey ci Lac de Guiers numéro la xëy tey ñëw Lac nag moom la yëglekaay bi xëy tey ñëw ci fukket ak juróom-benn yi nga ne def na ko ci làmb ji moom Lac de bi jàpp ko ci antar ak leer ak lëndëm ak itam war a tëbaat taxaw ca kaw a kaw sunu làmb xëy tey jàngate noonu waaye yemu ca de moom Lac de Guiers numéro 2 yëglekaay bi ñëw na ci moom ne na fi mu nekk nii daal tëb bi mu war a tëbaat moom boo xam ne ne daal bu wóor a wóor lay doon ndax lu leer a leer ndax nag yëglikaay bi jàpp na ne la mu wane ca contre Lac de Guiers numéro 2 wala boog ca contre Boy Niang dafa des yëglikaay bi di suñu làmb ñëw tey wax nu ko waaye tamit teg yëglikaay bi dellu na ci Lac de Guiers numéro ci carrière ba mu ko débuté yëglikaay bi ne na la ko commencé atum 2004 ba jàpp 2006 Lac de Guiers numéro 2 fa mu fa jaar lépp lu maanaam daal lu ko féete kanam da ba jàpp 2007 Lac de Guiers ña fa nekkoon ñëpp dalee daan ba nekk nekk champion foofa ñu ne ko déet na waaye ca ngay lem lat ne du fa yem continuer jàpp Tapha Gueye bu faas daan ko na mu ko ne ko fa ngay yem ñu ne déedéet mook baaboy tamit lu mel na xaw faa am donte combat ba sans verdict la mujje waaye yemu ca de yax ya jóob Yékini tamit Lac de Guiers numéro deux moo ko yóbbu fa nga xam ne moo di ca retraite am maanaam daal bàyyiloo ko làmb moo tax yëglikaay bi ñëw si moom la de Guiers numéro deux ak douze victoires yoo xam ne am na ko maanaam fukki ndam ak ñaar yu mu am ci làmb ji benn sans verdict ñaari match nul ak ñaari défaite défaite ya nag ëmma seen ko ko teg ak Modou Lo sunu làmb xëy tey ñëwal ñu ci ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 ka mu mas a bëreel moom ci carrière am ca kalaf ba muy tafaatin tafaa moom fi mu nii jafe-jafe yu mag yi mu kalaasool ñoo ko bañ a jël ngir bëre ak moom moo tax yëglikaay bi xëy tey samp na xanaa tafaa kon nag léegi yi fi mu nekk nii ñooy nekk yoon woo xam ne war na fa a jaare ndax ñi ko war a seqal taxaw nañ lànk ka ndaare ne du ñu laale ak moom sunu ko wax waxuma ko keneen koo xam ne moom itam gars yi dañ koy récité ngir bëre ak moom maanaam am nanguwuñu koo laal mooy usine doole usine doole daal gars yi nanguwuñoo bëre ak moom sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko boo xoolee kaay bi ñëw na ci moom ak huit victoire yoo xam ne am na ko ak ñaari défaite ci carrière am moom usine doole waaye ñeneen ñoo xam ne ñaari promoteur lañ ñu ñëw tey ci moom ka ca jiitu mooy Gaston Mbengue moo xëy di wax Gaston ne na lu toll ci ñeenti yoo xam ne yu teg loola at mu jot orange dana ko nattal lu toll ci six cent cinquante millions teggil ko ko jox ko ko ci wàllum sponsoring Gaston Mbengue moo wax loolu di lig Nikolaay yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom moom nag waxul kay wax mooy koy yore wàllum justice ci réew mi nana mbiri lig Nikolaay kumba am ndey wala kumba amul ndey amu ca jàpp na la ci am daal la nga xam ne nii moo di contrainte par corps koo xam ne des koo téye ne ko lii nga yore cib xaalis yoreel ko jàmbur boo ko joxee tey ñu bàyyi la nga dem sa kër ne na mbiri lig Nikolaay loola moo ca am maître Malick Sall mi yore justice réew mi moo xëy tey di wax wax bu demee noonu ci yëglikaay nga xam ne moo di sunu lamb ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb moom jànq moom Alioune saar la xëy tey di waxal Mansour nag moom la mu xalim xamal Alioune daal ne na ko Alioune noo Sarr demal bàyyi làmb ji heure bi dafa jot yemu ca ka nga xam ne moo di Sambara Jonn tamit wax na ko wàllam moom mi nga xam ne mooy Mansour ne na ko yow yaa jiite CRC bu Kaolack te wala boog bu Fatick te yàgg nga ci kaw lool li nga war a def mooy kite dem bàyyi ndax am na ñeneen doomi Fatick yoo xam ne ñu ngi fi seenu xam-xam rëy na te mën nañoo jiite moom loolu la xëy tey di ko wax keneen koo xam ne tamit doomi Kaolack wala doomi Fatick la dañuy dem fekki ko fa nga xam ne moom moo di ca yéeglikaay bi ñu record muy laay njombor ak drapeau chef ba nga xam ne moo amoon ca Kaolack moom nag Babacar Diop arbitre ba la xëy di ko tuumaal ne na baaba Babacar daal moom a bëggoon a boo xam ne man maa daanoon Léopold André Sarr jëlli bu leer nañ Babacar nag yee bëggoon forsa final ak Léopold André Sarr ba tax mu lijjanti loon ko Léopold wan ne ma moo ma daan laay nee na ma bañ koo bàyyi noonu fekk leen fa ñu ne réclamer leen sama yëf ñu xool kaset ya nangu ne maa daan jox ma sama samay mbir Babacar Diop ne ko loolu nga wax demewul noonu dooy affaire u jéem a fexeel kii wala xanaa kay la ñu gisoon la ñu àtte ba nu gisee leneen dañ laa jox la nga moom cerno ka moom nee na mbir yooyee da koo fàtte ndax dafa xaw a yàgg mbay géey moom la mu fàttewul ba di ca wax ca record nee na diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès mbay géey nee na combat gënu koo neex jàpp na ne lu jaadoo jaadu la buñ fa jógee nag dañuy dem l'observateur ipo ngaar yi microcentralu lamb ji moo xëy di fa wax ipo daal nee na ñoom ñiiri microcentral yi muy moog loxo bàyyi kenn fayu leenub xaalis wala boog CNC boog fayu leen bu amee ku leen di jox kay xanaa lay doon la ko commencé ci ñeenti junni jëm ba ca kaw waaye nee na wax na fi jóge moom mi nga xam ne nii moom moo di IPPO ngaari daal la mu na li am des daal docteur Alioune na fi jóge d'accord waaye nee na est-ce que ñu koy waxee noonu war a demee nee na daa jàpp ne ka ko fi teg muy ka nga xam ne nii moom moo di ministre Matar Ba ci moom la ñu war a dem ne ko ki nga xam ne nii moo di Alioune Sarr war na fee jóge IPPO ngaari Bougari moo wax lool damay dellu fa nga xam ne nii moo di ca record di rakku l'observateur record itam ñëw na ci mbirum Alioune Sarr ak waxtaanu yaatu yi nga xam ne seqoon na ko bërki dem ak waa ANPS wax fa lu yaatoo yaatu ba ñëw ci mbirum arbitre yi jàppal arbitre yi nag moom si tondu groupe am ñu ngay préparé abri postal boo xam ne tontu lay doon comme olof a ko wax tontu du forox loolu la ñu record tey xëy xamal mu mel ni ki nag tey moom loo ci mën a dégg wax ja saf na waaye xam naa sama ndékki ga la Mansour xamal lu ma ndékki fufu xam nga fufu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 kon alhamdulilah. ñu na si revue de l'arène bi ñu commencé ak sunu laam sunu laam na dafa xëy na def benn jàngat bu yaatu ak Lac de Guiers nee ñu Lac daal euh, depuis euh, fukki at ak juróom benn mi ngi diggante euh, guddi bu bësatagul ak ay. rebond xam nga ñu koy waxee ne solo xanaa après nga toj ko lumière ak lëndëm ak rebond euh, nee ñu nag pour mu nekk nag roi des arènes il faut que nag mu jéem a tàkkaat jëmaat ci kaw pour mu nekk roi des arènes bi nga xam ne moom lay yóotu depuis 16 ans Babacar waaw 16 ans de carrière maanaam fukki at ak juróom-benn yi nga xam ne boo xoolee mu ngi ci entre leer lëndëm ak war a tëbaat jóg waaw mu mel ni kon pour mu de loolu am nag il faut mu jéem a tàkkaat pour nekk un roi des arènes ëllëg yëglikaay bi ñëw ci carrière am depuis 2004 ba tey ak fi mu ci jot a jaar kalaf beeg daan yi mu daan ñoom Tafa Gueye ay Yékini diggante ak Baboy mel ni ki tamit mën nañ le mbër la bi nga xam ne ci boo koy xool ci en tant que sportif wala en tant que athlète bu professionnel mën nga ne loolu mu ngi ci moom te itam constant na par rapport ak carrière am xëy na lenn nag mën nañ ko ko wax mooy kani wala boog te loolu bëri na mbër yu mu dal maanaam combat yi yéex yi maanaam ngay bëre ren toogaat benn at wala ñaar doom combat loolu bokk na ci xay na li am téena mbër yu bare bare bare bëri mais Lac de Guiers numéro de am na profil nekk roi des arènes parce que li tax mooy carrière boo ci daanee Tapha Gueye yóbbu ci yaxe jób Yékini retraite ah daan ci ay Tapha Tine ay Issa Pouye ay Zos ak ñeneen ñeneen bëri ak Modou Lo ñaari yoon si ni ñëw ak moom mu gagné la par euh, par euh, avertissement yaa ngi dégg bëre ak Eumeu Sène match nul ngeen ñëw mu daanaat la nga ñëw bëre ak Boy Niang gañe ko maanaam bëri ay combat yoo xam ne daal combat yu bare bare ak mbër yoo xam ne tey mbër mu ci ne defe naa ne tey boo bëree moom ak na mu fay génne yaakaar naa kon moom am na lu nekk roi des arènes ëllëg mais nag loolu comme li yëgle kay wax rek laajaat na gën a yaa ngi dégg parce que euh, boo xoolee am na ñu bëri ñu koy blâmer ci façon bi muy bëree que ni défense défenseur la day défense mais nag ci li ma gis mooy que ni maanaam moom défense attaque lay def. waaw maanaam défense am day ànd ak attaque maanaam <laughs> yaa ngi reetaan mais maanaam boo xoolee comment Papa Sow da ciy dellu bi mu koy daan bi ko Papa Sow dóoree bay dellu ci la ko ci la fayu contre ko fekki ko kon loolu lépp da koy dog mais nag bëree moom da ci ànd ak prudence bu doy doy ba nga xam ne nii daal moom du maanaam bëggul lu ko jaxase biir bëree moo tax ba nga xam ne itam <laughs> waaw ay combat mooy des fois mu xaw a doy waar waaw Babacar nag suñu jógee si la dëggee dañuy dem si ki nga xam ne mooy Tapha moom nee nañu comme que léegi ñi mu maaseel maanaam VIP ñoom nañu bañ bërek moom nee ñu nag mu dem rek si wàccaat si suuf dem bërek xale yi ma maanaam espoir yi waa loolu day comme maanaam ñi mu maaseel jamono dañ ne duñ bëri ak moom mm, sëb nag la ko bënn nga ca biir yaa ngi dégg ñoom ñi bañ na duñ bëre ak moom xam nañ lu tax wala ñoom ñoo xam lu tax ñu buñ ñu ngi def ay preuve di ñëw il ñooñ tamit yaakaar naa am na droit moom may leen sens pour mën a bëre ak ñoom pour mën a bëre parce itam ñi ma naan bu dee dañ koy bañ ñi koy bañ itam est ce que am nañu raison buñ koy bañ xaw comme li ma la sànq ci ne sëble la ko bënn nga ci biir waaye daal xam naa ne ci mbër bokk ci champion yi la bokk te defe naa itam euh, mbëru gox la ndax fa mu jóge ak la mu boot defe naa ku ko boot wares na mën a bëre ak yow soo wanee ay performance yu leer te itam ci ndam lu rëy la jóge diggante mi ngi Yékini Junior Babacar journal xamal xamal ki nga xam ne mooy ministre Malick Sall ministre de la justice moom nee na Luc Nicolas su fayee euh, li nga xam ni xaalis bi mu yoreel kii nga xam ni mooy ki nga xam ne moo ko yóbbu woon si yoon su ko fayee tey tey tey mun a fanaan kënam tey tey tey waaw ñun de loolu li ñu ciy wax mooy loolu ministre bi wax defe naa ñëpp dégg nañ ko kon nag yàlla na yàlla def ba loolu mën a am parce que itam yaakaar naa tey Luc Nicolaï ñun encore une fois rek. li tax ñuy xalaat ne xëy na war place am du kaso ba maanaam fi ñu ko teg teguñu ko lu ñu neex wala lu ko neex mais dañu gis mu nekk Sénégal bi nga xam ne mu ngi dugal loxoom ci réew mi ci développement Sénégal àddina nag ak ay ndog ndog a ànd des fois ay erreur am ci a arrivé yaa ngi ñu ngi ñaan daal loolu nga xam ne moom la ministre bi wax yàlla man loolu sax ñun buñ ko waroon a mën a def tey ñu war a mën a génn taxaw jéem ko fayal loolu pour mën a dellu siwaat fi nga xam ne mooy ci njabootam ci këram waaye ci famille bi mu bokk muy famille làmb parce que tamit wax dëgg yàlla waa làmb lu ñu la mënti wax mooy soxla nañ Luc Nicolaï wala ma ne sax waa Sénégal waaw yaakaar na sunu lamb tamit ñëw na si ki nga xam ne mooy Gaston Mbengue lu ko woowee la Don King de l'arène moom nee na daal durant wu ñeenti at ki nga xam ne mooy orange euh, daana ko doon jox 650 millions par at Babacar mu mën tëgg ay combat waaw loolu xam naa ne bokk na ci li taxoon at ay at yooyu mënoon di def yenn kalaaf yi di tëgg yenn grande affiche yi parce que tamit euh, loo ci mën di dégg dañ ne feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbëgg ya ça veut dire que am na yenn euh, bis yoo xam ne boo bëggee organiser ak yenn événement yoo xam ne nday kumba dafay jaadu sponsor yu dëgër ne sa ginnaaw te itam sponsor yooyu ñu limb muy société en téléphonique yi fi nekk yeneen sociétés yi ne ci réew mi doomu réew mi ñoo koy jëriñoo kon yaakaar naa itam ni ñuy dugale seen loxo ci yeneen sport yi ak di ko dugal jaar ñu di ko dugalee noonu seen loxo ci làmb ji parce que li tax mooy da nga koy jënd ma koy jënd man soo di ko jënd keneen di ko jënd kon defe naa ne buñ ko jaarale ci cadre professionnel war nañu sax mën di joxe lu ëpp loolu promoteurs yi pour que ñu mën di développer suñu sport national di wàññi semence bi loolu c'est normal parce que li ñuy am ci bénéfice ci ay milliards par an c'est dafa bari te boo xoolee tey ñi nekk Europe dañuy déggante ak ñoom ñoom ni ñu nekkee Europe di fa doxalee ak ñi nekk foofu ci Europe ñoom société téléphonique yooyu duñu maanaam lañ fay doxalee ni ñuy doxalee ak ñun fii xalaatuñ ko def ci dëkk yooyu tubaab yooyu xaw ma nag mbir mi lu ci xew xaw ma suñu gouvernement yi la xaw ma ñun euh, maanaam population bi la xaw ma mais am na lu nekk ci biir loo xam ne waxee su ko waaye nag defe naa jox Gaston Mbengue 650 millions wala jox ko léegi Nicolas wala Fallou Ndiaye wala Assane Ndiaye wala Dieye Sène wala Pa Abdou war nañ leen sax jox plus de un milliard par an pour pour ñu mën a promouvoir lamb ji Ndeye Coumba Fall. ndax ma ma euh, ma dooleel ak Babacar Orange mooy benn société bu nekk Sénégal boo xam dina am plus de un milliard de bénéfice euh, par année si loo xam ni maanaam si wàllu téléphone ak Babacar. Ah waaw xam nga loolu kon loolu kon ay ay ay ay ay milliards nga de ko bénéficier ah.

Babacar mooy tu numéro la comme Cheikh Yérim Seck ñu jógee nag euh, si suñu laam ñëw nag si record record nag ma mi ngi ki euh, nga xam ne mooy mooy gay premier tigre de Fass moom daal dafa bénir combat bi mooy Gris Bordeaux na ko tëgg déwén nit ñi nag ñu noon kaas naan loolu Gris Bordeaux ko nangu ndax maanaam li muy li muy li muy laaj si ay adversaire des fois dafay xaw a ay adversaire VIP lay bëgg laaj euh, ki nga xam ne mooy mooy gay nag moom nee na diggante boobu war na mën a dox Babacar waaw Mbaye Gueye de lu mu wax ci Gris Bordeaux defe naa war na koo mën a jàpp parce que itam mbay géeyee Fass ndax li taxam loolu moo sanc Fass ak ñoom kon ba tey Fass nekk di Fass ay nit ne fa Gris Bordeaux ñëw bootu ci ginnaaw mbay géey ilif ko ci wàllum làmb kon bu ñu doon lam-lami digganteem ak Sa Thiès mbay géey génn na war naa mën a ne ah, bàyyi ci xel waaw ndax mbay géey xam naa ne lu mu wax am na lu ca surtout ci mbir mu demee nii te itam li am solo mooy làmb ji ñu mbër yooyu ne ci kaw ñu leen di voyé ay VIP il faut que seen rakk yi nga xam ne ci buntu bi lañ ne ñu jëm leen tàllal loxo ñu bëy ak ñoom pour làmb ji gën a mën a jax quoi mais tamit bu fekkee dañuy tourner autour de quatre wala cinq personnes kese loolu du tax làmb ji neex tey ay Sa Thiès yi ay Boy Niang ay Ama Baldé rëg-rëg ñoom Yékini Senior Garga Mbossé Modou Anta bu Thiès ay Ama Neex Forza ay Malick Niang mbër yi yépp dañoo war a jaxasoo ak mbër yu mag yi ci ñi nga xam ne wane nañ ci lu war a tax ñu bëre ak ñoom ñu bëre ak ñu pour que làmb ji gën a suqalikuwaat quoi Babacar nag ni ñëw si Laye Ndiaw Mar bi nga xam ne en 2007 Kaolack moom diggante ki nga xam ne moom mooy euh, Léopold André Sarr bi nga xam ne moom la doon bëreel si demi finale bi moom na si coow boobu leen na coow bi sax dafa euh, dem ba si wàllu CNG ki nga xam ne moo arbitre woon combat boobu muy euh, Babacar Diop arbitre Babacar Diop moom tamit na dëggal na li nga xam ne mooy Laye Ndiaw Mar moom la wax si demi finale boobu xam ni moo ko opposé woon ak Léopold André Sarr am na solo même ñi ma doon lim léegi léegi guy gi ci la bokk ndax moom it mbëral mi nga xam ne mbër yu mag yi war nañ ko mën a gëstu may ko sens bëri ak moom mais laay njomboor loolu mu wax waaw lu am solo la maanaam que ni dañ ko bëggoon xañ benn final boo xam ne 2007 la woon drapeau résultat boobu moo ko gañoon gañe força mais nag li am solo daal mooy euh, dafa am wax joo xam ne ko euh, des fois euh, wax ci day xaw a doy waar parce que li tax li tax mooy Babacar Diop arbitre la si sama xalaat man su ma gëm-gëm yaakaaruma ne duñ ko jël arbitré loo ko benn tournoi mu war teg ci yoon a àtte di maanaam di faral nit ba nga xam ne nii borom day daanu sax mu yëkkati ndam la di ko jox kañu daan wala boog ka nga xam ne dafa ñàkk mu di ko jox ndam loolu nag mooy dafa xaw a doy waar bu dee am na moom lu dangereux la lu nañ laay njombar wax parce que itam loolu defe naa ne dara gënu ko rëy bu dee lu am la te itam war warta mën a ne mais ki nga xam ne nag mooy laay njombar moom loo ci mën a dégg dara résultat boobu wane na fa lu leer nañ ba gagné fa Forza muy mbër boo xam ne tey mbër bu mag la ñu gis ko tey ci jàmbaar wrestling academy mu di leen encadré muy nekk ku ku yaru tamit macha allah Babacar tamit sama turandoo mu koy nuyu di nuyu corps arbitral bi di wax ne daal ñun ñëpp ñoo bokk milieu bi daal nay na na gën a moo gën daal dina rafet boobu na dafa mel ni arbitre yi fas yéene wuñ ko jëfee ndax ginnaaw bu Alioune waxee démb si journaux yi yoo xam ne reprendre nañ ko si groupe whatsapp bi ñi nga xam ne mooy association des arbitres bi euh, jiit euh, ki nga xam ne moo ko jiite Misitor ak ñoom Pierre Malick ñoom ñëpp nee ñi ngi préparé riposte pour tontu ki tontu ki nga xam ne mooy président Alioune Sarr comme li ñu wax rek tontu du forox baax wala nee na loo si mën a dégg comme ni mu waxoon laa si waxaat rek arbitre yi kii jiite lamb ji muy CNC bi ak seen président Alioune Sarr ak ñun ñi si nekk ak milieu bi ak sénégalais yëpp pour man rek nday guma ñoo bokk réew mi defe naa ne est-ce que jar na ñun ñëpp ñu nekk di waxante Alioune Sarr wax fii arbitre di wax fii kee wax fee de pour man sa inutile li ma gis mooy ñoom am nañ la leen naqari woon réclamé nañ ko fajuwul xëy nañu grève nañu ñu aj leen ñu ëpp ci sénégalais yi jàpp nañ ne liñ leen teg du aw du aw yoon bu ñu lay xeexal des fois nag war nga tamit xaw a kii tuuti waaye lam solo daal mooy nañu waxtaan mais waxante bi yëpp du ko jar parce que yaakaar nañ ne arbitre yooyu liñ leen teg ñu ëpp ci ñi tey boo leen wax dañ naan le injustice la bukki nag ne li ñëpp wax mooy dëgg ñaa ngi dégg kon li ñu leen teg ñu xool nuñ koy dindee pour que ñoom ñu mën a seen place seen li ñuy bëgg tamit ci ay soxla wala li nga xam ne moom la ñu jàpp ne seen i yu ñu leen war a jox la ñu jéem koo matale parce que tamit nit ki arbitrage dafa metti la nga xam ne moom la war warloo war nañ ci mën di jéem taxaw bu baax a baax kon ñu jeexale ak observateur observateur na dafa dina euh, dala ki nga xam ne mooy kenn si microcentrale mi Hippo Ngary Hippo Ngary daal moom nee na rafetul ñu naan Alioune Sarr na fa nee na daal kenn rek moo fa mun jëlee Alioune Sarr ki si bopp CNG muy le ministre nag ñii di na Alioune Sarr na fa euh, na fa jógee ñoom dañoo war a moom mais pas ñu naan Alioune Sarr moom tegu fi boppam na mi ngi fàttali que CNG ñoom CNG di leen fay euh, promoteurs yi tëgg seen lamb nooñu dafay ñeenti junne ba si juróomi junne par journée ne Babacar. waaw Ipongaar ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu suñu papa ñoxo bàyyi ñoom ñooy microcentral defe naa gars yi namoon nañ leen sax ayca ayca ji ah, loolu benn affaire la ak léegi nag. xam nga yooyu beneen ay affaire yu neex la mais nag ko loolu mu wax am na solo que ni tey du nekk Alioune na fi jóge na fi jóge rek yaa ngi dégg waaye li am solo daal mooy xëy na ki dina fi jóge pour man jàpp naa ne waxul lu aay ki dina fi toogit waxul lu aay mais ku ci ne rek nañu fexe ba booy wax na fi jógee nga teg ko ci lu objectif muy wax tam na fi toogi tamit nga teg ko ci lu objectif loo xam ne njariñ lay doon mais pas loo xam ne c'est intérêt personnel yaa ngi dégg loolu moo ci am solo ci na fi jóge bi ak na dem bi ñoom itam en tant ay kii dafa